Ah, ba li nit yi war a xam ñu xam ko. bu boobaa ku nekk def sa am na ay questions yu jóge ci internet yi maam xar ya waaw waaw daanaka lu si bëri sax euh, euh, ulay jot na ko procès mooy euh, lu jëm ci <laughs> moo tax ma doon signal waa kay justement par rapport ak procès bi mais bon xanaa beneen question bu ñu souligner mooy yi muy am ak ñeneen ci justice mhm. te internet yi jot nañu signaler mooy affaire moom ak Bocar Samba Dièye mais xam naa ne si mën nañ ci ñëw ci waa ci question diverses yi peut wala ba la fekkente parce que doon na question bu leen soxal waaw kay loolu tax ñu bëgg ko mélanger un peu thème gis nga li xaw a doy waar Sénégal. Hmm. dañuy dégg dara wékku ci. Hmm. doon ne ki doon wax wax na leneen. Hmm. ba génn ci li mu doon wax. ndax Bocar Samba Dièye dem na ci ITV seen benn collègue interrogé ko. bu tontu ne mais loolu man. Euh, sama diggante ak Abdoul Mbaye y rien. kon fu coow mais lu tax lu tax lu tax du ngeen ko téye itam. Eh, eh, eh, c'est mais am lu ñu lu mu njëkkoon wax loolu. Mhm. laa muy wax lu mu jëloon ndax amul woon yenn kàddu yu jugoon mhm. wala. mais loolu loolu du man nga koy laaj. Mhm. Pape Ndiaye yow yaay journaliste da ngay déglu Boucar Samba Dièye ñaara mën a ne nga enquête seet. ndax responsabilité Abdoul Mbaye mën na ne ci biir li muy dund digganteem ak CBAO defuloo ko au moins déglu ko seet ndax dinañ toog ba mu wax leneen waaye Boucar Samba Dieye am na leneen lu muy wax à à TV. léegi la question précise internaute bi question précise bi lan la moom. question précise waaw mooy li ko lié rek parce que xam nga sànq dañu souligné dañu souligné mooy lu jëm ci wàll ak moom ak ex femme am. Mhm. Euh, tey ñu ko doon déggaat ci lu jëm ci moom ak Boucar Samba Dieye donc looloo tax bu fi toogee euh, ñi nga xam ne nii ñooy internautes yi ñoom ñu bëgg see am. lu leen leer ak wax lan moo leen lié. ñu ngi leen ñu seetaat li Boucar Samba Dieye waxoon lu mujjee toon à ITV. jëmale ko ci lu dox digganteem ak Abdoul Mbaye mhm. ndax def li mu doon wax yëpp. Mhm. nee na loolu amul. moom wax na ne amul. te man bi mu dooree wax li ma li ma li ma li ma ci wax as tuut. Mhm. mooy Bocar Samba Dièye nekkoon na fi le client le plus important moo ëppoon solo ci client yi ma yoroon CBAO. bi ma jógee CBAO dem banque sénégalo-tunisienne. mu doonaat le client le plus important de la banque sénégalo-tunisienne te mu jógee ci lan mu jógee benn ci koo xam ne dam ko ndawoon ndax ku jógee ci jaay benn mujjee doon le plus gros importateur de riz du Sénégal man loolu foog ma naw la loolu di benn waaye ñaareel itam ñaareel bi itam biñ ma dénkee bi yow hmm. bi yow narmeelu lool hmm. waroon a daanu sax waroon a tëj ñu ma ndegam dénkoon nañ la banque de l'habitat du Sénégal nga defaraat ko kaay bi yow ñu ne ma aleel dikk na ñu ngi banque centrale ma ne bon kon ñeme na bi ma demee banque centrale ne am na lu ñu béy yow ameloon xaalis bi téye nañ ko <laughs> mu nekk problème boo xam ne dañ doon toog 19 heures li ñu doon njëkk a seet mooy ñaata xaalis moo des ci kees bi ndax ëllëg client bu ñëwee indi check ñu mën ko fay. maa ngi fàttaliku benn guddi 19 heures ñu def le point 50 millions nekkutoon ci kees yi te xam nga am na client bu mën na ñëw rek ne je retire 50 millions wala ñaar ñëw ku nekk 30. suba teel maa ngi fàttaliku sax keroog dama dama dem julli sama ñaari rakk ñaan yàlla ne ko vraiment man. def naa ci sama wal sababu la mun li ci des mi ngi solo ëllëg sa suba teel ñu ne ma ah Bocar Samba Dièye agsi na mi ngi ci sous-sol bi indi na deux cent millions loolu bokkoon ci biir on a eu d'excellents rapports. d'accord ma génn banque bi dix ans après dix ans. Mhm. lii génn. Mhm. banque bu ma dem itam BST notamment ma oo ko mu bokk ci capital bi CBAO kazalika bi ñu koy defaraan amul investissement man sax amul investissement en action manaan bu bokk ci benn entreprise boo xam ne Bocar Samba Dièye gagné ci lu ëpp li mu gagné ci BST xam na ko mm-hmm. digganteem ak yàlla boo ko ko laajee wax la ko mm-hmm. amul Bocar Samba Dièye amutoon rendez-vous day ñëw ne dama bëgg gis DG ñu ubbil ko mu musuma fàttaliku mu ne soxla naa lii war a indi ceeb bii ñu ne ko du fi amee. Mhm. bu demoon nag CBAO dal ci kawam. mu mhm. xaw a jaaxle. loolu daal di dikk wax boobu daal di dikk. Mhm. waaye mu na ci génn. loolu am solo. lépp daal vraiment baal naa ko. ak loo xam ne lii mës na ko wax ci ñu jëm ci man. pour moi c'est pas le te du ma mas a fàttali lii nga xam ne maa koy fàttali tey hmm. mooy banque bi yow bi mu sauvé hmm. booba ñu dénk ma ko am yaakaar ci man moom war ko yëkkatiwaat man noonu lay demee d'accord dem na ba jaaxle indi wax boo xam ne rëccu na ko génn ci hmm. sa terme voilà beneen question ci euh, sa digganteeg euh, nit rek Aïda Ndiongue dañuy gis tout le temps fi mu toog dalay euh, xaxar daal di la yekk yoo xam ne yu xaw a la waar lan mooy sa diggante ak moom da ngeen jote wala. <laughs> jotewuñu Aïda Diom bi ma nekkee premier ministre euh, dafa am ay contrat yoo xam ne ñu ngi leen doon rëbb contrat ak demande de ndax ci weeru février lépp loo xam ne dañ ko yàkkamti rek foog nga seetaat ko mm-hmm. ci biir seetaat boobu saytu boobu ñu gis ci marché achat produits phytosanitaires xamoon itam ne lépp lu jëmoon ci xeex mbënd espèce su campagne la woon marché pompage marché achat tente marché achat ay xayma marché achat produits phytosanitaires mhm. fekk sax nawet amul ñu war a fay contrat cinq milliards ci ay produits ñu ne ah lii de doy na waar cachet yi li mu gaawantewoo ci élection bi jàll na il faut il faut regarder ça saytu ko gis ne cinq milliards yi mi ngi fay loo xam ne c'est sept cent millions bi ñu ko bi ñu ko évalué par des spécialistes dossier bu mel noonu noo ko mën a téye foog nga jox ko ñu ëpp ko donc ça c'est les faits waaye gis nga Sénégal yi itam dafa doy waar. Hmm. bu fekkoon ne ñu ngi ci réewu ñemewu ma wax nitu xel waaye ñu ñuy xalaat boog. ku jóg ne jéem na ma lépp cinq cent hmm. loolu dégg naa ko. Hmm. waaw xam nga ci yoon. li ñu war a jëkk seet mooy 500 millions naka ma la ko mën a amee. kan moo ko doon leb moroomam. la mu ne man man maa maa ko leb. maa ko jéemoon a leb 500 millions. nan mhm. moo tax mu ne yow la mu visé la yow. Ah, parce que jàpp na ne man maa ko topp yoon sonnal ko alors c'était même pas le cas mais am na dossier yoo xam ne bu ñëwee mais ci régime bu bees boo xam ne mu ngi haute reddition des comptes. ñu signaler la ko nga def ci sa coude. moi je peux pas faire ça. ok donc donc yow Aïda Ndiongue yaa ko livré à la justice. non je l'ai pas livré à la justice. j'ai donné man bi muy dem justice sax nekkatuma foon. le dossier lui-même a fait l'objet d'une enquête affaire bi dem dem justice. nga diligenté ko mu dem. du man maa koy diligenté c'est mon rôle de premier ministre. mais moom jàpp na ne comme c'est le gouvernement c'est c'est Abdoul Mbaye waaye ba tey bañu ma ko ah te peut-être que tey mais le vrai problème est-ce qu'il est là mais 500 millions ku ko mën a leb xanaa boog di nga am état financier yoo xam ne wane na ne yaa ngi ak moom. Ah, dans un pays développé la tu viens tu dis wo maa ngi ak 500 millions wala mën naa ko leble et cetera mais foo jëlee loolu. loo ko mën a def. jamono yi ku nekkoon directeur banque bi <laughs> vraiment ci ca jamono yooyu maa ngi doon wax sànq euh, li nga xam ne lii jëlee woon naa ko ci ci BST parce que BST euh, moom itam dañ ko waroon tëj au mois de décembre novembre ñu laaj gu gouvernement laaj feu Aliou Sow am na ko yàlla yërëm te xare ko